ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu roowu maag ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor siy jeeg gën gu jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci Wassare Lamb mbokk yi ñu yottu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne di leen siyaar foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a koy ànd ak Wassare Lamb muy seen site internet ngeen bëgg ko loolu am na ñëpp xam ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko Wassare euh, jàngat làmb tàmbali na bàyyi ji li père Birame ndax du ma ci wér benn yoon kon ci ànd ak sama papa. père Birame mi nga xamante ne macha bi mu fi nekkee ba léegi a doole ma ñëwee yoon bi père maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa maa ngi nuyu mboolo mbool internet yi nga xam ne ñu ngi sa safoo si bi tudd euh, wasaare mm-hmm. di leen tàllal loxo di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di leen ñaan sama kàddu yàlla na fekk leen yéen ñëpp ci jàmm nag di ñaan Sénégal ak réewum si àddina bi yëpp yàlla na yàlla jële mbas mi yàlla feebar beeg natt yi fi am yëpp yàlla na fi ko fi yàlla jële te yàlla na yàlla sotti xéewal ak wërsëg bu yaatu ci biir Sénégal ak réew jullit yëpp eh, di kontaan di toog yow toujours nag wax dëgg yàlla ci yar bi ci teggin yi ci xoromo ngi waxtaan wi <laughs> di la nuyu di nuyu Basir di nuyu Adama di nuyu ak xale yu jigéen yi ak ak Ousin sama doom moom it ndeysaan démb woon na ma nag ma kontaan trop rek dama père dama laa gëj gis rek namm la xam nga loolu rek dara la waaw nit xelam toog nekk ci yow rek mu jekk yow ba da nga def maa ngi lay nuyu loolu dafa neex kooku ko koy def da xam ne kii fàttewu ma waaw loolu lu rëy te xam ne ku ma la waaw di waxtaan di kontaan trop ñu toogaat incha allah di jaan yàlla toogaat bi yàgg lool waaw yàgg te ànd ak wér nag waaw jaar wér di gërëm waa association SARS. Mm-hmm. di njiital ko euh, sama papa Moustapha Guèye. Mm-hmm. père Birame Ndiaye nekk trésorier. Mm-hmm. am ci ñoo xamante ne dañ leen di gërëm ku ci mel ay Pape Kane ay Boy Sey. Ah. ak ñeneen ñoo xamante ni père a tax. Pape Konaté waaw Pape Konaté père a mu euh, commencé jàpp loolu. Euh, tey nag bëgg naa ñu waxtaan ci SARS parce que dafa mel ni. amaat ngeen beneen ndam ndax bu ñu association des SARS. njiital gi ñu ci bokk ñëpp doon ñoo xamante vraiment am ku leen gën a xam làmb mm. ci réew mi mm. ñoom ñu doon benn kuréel mm. ba ba ba jël ci suñu papa Moustapha bi altine bu jot muy dem ci ci daje bi nga xamante ne dañ koy defee soxla ci xalaatam ban gis-gis nga ci am waaw jërëjëf ji li ma kontaan naa trop ci question bi nga ma posé muy question bu ma neex parce que les sages bi ñu ko defaree euh, groupe WhatsApp rek la woon après léegi de daje di waxtaan di waxtaan ba mu jigi mën a leen lii nañ ko def association mm-hmm. parce que association yàgg na fee taxaw xam naa loolu dinañ ci mos a ñëw émission nag association mm-hmm. bi keneen yor ak la ko yor ak fa mu ñëw ak la fa indi loolu lépp dinaa la ci dañ ci mos ñëw mm-hmm. loolu émission bu spéciale la bu ñu war a def dinañ ko mos a def incha allah ñu tànn Moussa Gueye nag ne mate na ko parce que xale la borom tur la def na làmb ci carrière am def na ci rafet wax dëgg yàlla foo xam ne fu mu taxaw yëpp gestu ku mel noonu booy jiital jiital ko la boole ci suñu rakku rakkuwaat la léegi nag bi ñu ko jëlee moom sax xawoon na bañ affaire boobu waaye ñun ñoo ko forcé mu doon te boobu bañ ko forcé ba mu nekkoon it ba nag ni wax dëgg yàlla mu ngi ko mate na ko. parce que lépp lu ñuy toppatoo rek. bu ñu ci jógoo mooy ba ñu toppatoo récépissé ak li muy jafe lépp da ko toppatoo ci une semaine. Mm-hmm. loolu rëy la. am leneen lu ñuy toppatoo même compte bi bi ñu koy ubbi compte banque pour lu ñu am def ci suñu compte. Mm-hmm. ñetti signature di génn xaalis. ma mm-hmm. imposé leen loolu. dafa cee fekk si xam ne dëgg la. boobaa ak dëgg it ubbi nañu compte ba suñu am lu ñu def fa Eh, bi ñu ànd ak góor seeti ministre Moustapha Matar Ba tamit ci Covid bi dajale suñu cinq cent mille comme ñëpp def lu baax ñu ne lu baax bu ñu koy def bu ñu ci kenn jiitu ñu daal di ànd ñu d'accord ci xalaat bi daal di yëkkati cinq cent mille jël suñu kees dem yóbbu fa keroog ministre bi dafa contrôle ba ñu ne ah yéen kat bis ni que tey bokk naa les sages lu ngeen di jox ñu nag ñaata ngeen di cotiser ñun des douze mille la ñuy cotiser ñun par ku ne Sénégal mais ku nekk euh, Europe nag euh, soixante cinq mille ngay ak sa carte de ku ne Sénégal fii quatorze mille ngay cotiser plus sa carte mm-hmm. mu ne man bis naka lay bokk na. Mm-hmm. daal di yëkkati cinq cent mille ne dinaa année bu jot man dinaa cotiser cinq cent mille. Mm-hmm. loolu mu nag monsieur le monsieur le ministre Matar Ba ñu ngi lay gërëm di la sant. Ah, te wax la nga waxoon nit day fosaamu kàddoom na nga ko waxee woon defe ko ni tegal ñu tamit nañu les sages gii ma gis nii ak kilifa yi ma ci gis nii fu ma gis Birahim gis fa Ibou Dafa gis fa Kati gis fa Moustapha Gueye ah gis fa Boy Kayre ah mais ñooñu tamit ñeme naa loolu daal ñuy jël dugal ñu ci biir dégg nga wax dëgg yàlla nu ñu fiy defati ci làmb dañ leen ci dugal ci biir. Mm-hmm. léegi nag kon bu ñu jëlee Moustapha Gueye président def ko xëcc ko ci léegi lu muy siège ñu bokk ci loolu ñun mbégte lañ ci am. Mm-hmm. lool lañ ci am wax dëgg yàlla kontaan ci lool ah, di ñaan Moustapha réussir foofu. Mm-hmm. waaw Père Moustapha dem fa génn ci làmb parce que na ay xale yoo xamante ni mu leen formé ba ba ay hmm. euh, mu demaat foofu lu muy représenté représenté jëmmam moom Moustapha Gueye wala association Sage la fay dem moom la fay nekkal. Euh, laaj nga question boo am njariñ nag. Hmm. wax nga dëgg nekkalu fa jëmmam Sage la fa nekkal. Hmm. wax na ko démb Sage laa yéen a ma yónni yéen a ma ñun ñëw tànn les Sages def ko président. ministre bi jël les Sages de dootul wax lamb lu ci lu ñu amul lu ñu defati ci lamb te Sage bokku ci. mu jël Moustapha teg fa kay. te Moustapha lamb rek lay doxal. fi mu ne tey ñi ma faa wax loo xam naka su noonu la man ñi ma faa wax luy gaañ mbër wala luy dellu ginnaaw mbër wala loo xam ne tegul ci dëgg wala daal wala mbër mu newul ci dëgg pare mu di la far amul du ko def dégg nga benn loolu ñi ma ko sax parce que loolu ñun bu ñu jógee balañ ko kenn faj ñun ñoo koy faj association bee koy faj parce que moom it wax dëgg yàlla xale bu joxe cër la fii ne lu muy def noonu balaa def daal dee ñu laaj man dina ma woo laaj ma dina laaj kati dina laaj Ibou Nafa dina laaj ay ay burxaan dina laaj gars yi nga xam ne bokk nañ ci association bi wax dëgg yàlla taxawal ko dina ci jox xalaatam kooku mel noonu bu fa toogee ñun la fa toogal mbër yi na seen xel dal mbër nañ njëkk nañ nekk ci njub rek nañ jéem a seet di respecté contrat contrat bi ñuy signé nañ koy respecté rek bu soobee yàlla lépp looy ngaaj Moustapha Gueye dina ci gartànku tubéyam loolu doy na waaw loolu doy na ñun la fa nekkal sage la fa nekkal mbër nañ seen xel dal lañ doon soxlaw woon lépp am nañ ko léegi fi mu ne ah ñu leen ñaanal gudd fan ak wér parce que mm. seen njariñ seen nekkin boobu foofu mm. yëpp la muy rafet rafet njariñu làmb la parce que ñu mel noonu moom vraiment euh, mm. ku dul ministre bi sax ñeneen président de la république sax war naa mën a bokk ci association des sages yor carte membre parce que doomu réew mi la te bëgg na làmb te njariñu làmb dong lañ fay waxtaanee per ñaareel partie bi mu ñëwaat ba tey du ma génn ci làmb euh, muy promoteur dafa am benn daje boo xamante euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy def. Hmm. Euh, fële bi ñuy euh, jox bira seen. Hmm. Euh, lenge yi. waaw président CNG. Hmm. dafa am lu fa ministre boo waxoon. mu ne dinañ jàppale ci Covid bi képp koo xamante ni promoteur du làmb la. te régulariser woon sa combat ci CNG. ndimbal bi nag génn na. am na ñu ci jot am na ñu ci jotul. waaye ndimbal bi li wolof naan daanu dajut suuf ndimbal bi dafa mel ni. biñ koy jox dafa ministre bi daf leen ko jox mais dafa am ñu ko am ci promoteur yi am ñu ko amul ci promoteur yi ba tax na mu ngi indi ay jeexi jaaxal ban gis-gis nga ci am gis-gis ci de jili mhm. euh, mooy association bu ko see taxaw képp ku jënd carte de membre bokk ci association ba ca nga bokk. Mhm. mu ngi mel ni samp daayira. Mhm. képp ku jënd carte membre daayira ba ci daayira ba nga bokk. kuy cotiser ci daayira ba ca nga bokk. ku nekk en règle ca nga bokk. parce que association bu ñu ko taxawalee tamit da ngay nekk en mm. bokk ci association ba règlement intérieur bi la mu santaane nga ne ca mm. loolu association bu ñoom loolu nag bu taraa nga génnee nag tegu ca loxo association boobu nag association ba amul xale amul mag amul promoteur bu ndaw amul promoteur bu mag ñëpp ci bokk yem kon waru ñoo jox kii lii jox kale laa nangam déedéet ñoom lu fa génn rek association bee ko moom mm. association bi nag bala ñuy xàcc wal tegale dañu war a toog nag waxtaan réunion nag toog waxtaan ne ah ministre bi kat ñu ñu ñaan ministre bi def dimbalee nañu nàngam wala gouvernement Macky Sall kat dimbalee nañu nangam ndax Covid bi léegi nag alal jaa ngi nii nan lañ ko def ku ne wax sa xalaat. Hmm. ñi bokk ci association bi ku ne wax sa xalaat. képp kuy promoteur rek te ngay promoteur parce que ñaari promoteur am dafa am ñoo xam ne promoteur dóor la ñi promoteur simple lañu. lamb simple ñi promoteur dóor. yaa ngi dégg li wax léegi nag loolu tamit war nañoo xam ndax promoteur dóor yi la ko lijjël la ko dimbale wala ñi nga xam ne bëri simple la kon foofu nag bu foofee boobu xaajaloo day daal di am hmm. kon ñi nekk promoteur bëri dóor ñooñu seen wàll ngi nii wala fekkee dañ koo bokk ñu xaaj ci digg bi ñuy def promoteur dóor ñoom moom lii ci digg bi lañ koy xaaj li leen jox ñoom ñu jël li pour premier simple jël li promoteur dóor jël li hmm. bu boobaa nag bu ñu jëlee ne président bi ci boppam bu téye alal ji day woote réunion nag ñu bokk toog waxtaan képp ku nekk ak jour bokk ci group bi am carte membre bokk ci groupe bi boobaa ca nga bokk koo xam ne kii ne ba ñu sasee mbooloo ma bokkoo ca nag bul ca xuloo bul ca kaas bokkoo ca parce que jëndoo carte adhéré woo waroo cee dax waroo ca wax ah waroo ca wax ah yow buñ ne woon tey station site internet yi nekk ci Sénégal yëpp tey ji dañoo def benn station bokk wasaare wasaare ñun de bokkuñu ñun ah waa léegi nag ñu ne ah Macky Sall kan may nañu trente millions est-ce que am Bassirou ñëw am ngeen droit taxaw dañ dañuy jox suñu wàll bu ñu ne station bi la station wa ñuy def Euh, euh, ñu def groupe ñooñu laa ko may ku ca bokk ca nga bokk may ku ca bokkul bokkoo ca mm. waaw loolu de man mooy sama gis-gis na mais père loolu est que ministre bi bi mu ko ci turu association ministre bi la mu wax daf ne képp ku régulariser sa combat CNG. waaw ndimbal dina jóge ci ministre des sports ñëw ci yow. waaw budget boobu nag ensemble lañ léegi ndimbal boobu day wàcc ci ministre des sports mu yëkkati ko jox ko promoteur mais est-ce que ñoom ñi nga xamante ne ñooy promoteur làmb bi ko ministre bi di ko jël di leen ko jox est-ce que jotul woon ñu xelal ko ni ko ah monsieur le ministre ñun de association lañ. sob bii ngay yëkkati di ko jox père Birahim di ma ko jox di ko jox kàggu ak aadama est-ce doo ko jox ci turu association bi ñun ñëpp su ko defee ni mun ko séddoo parce que li wolof naan benn nen ci mbooloo. kenn du ko baxal waaye dañ koy may ne ku nekk jàpp sa sa baaraam. Mm-hmm. Euh, boo xoolee gis nga boo tax conseil yu baax. Mm-hmm. Macky Sall mi nga xam ne mu ngi yor mooy président de ay conseillers am. nit day am mm-hmm. bi dafa ay conseil yoo xam ne duñ ko jaay dañ koy wax dëgg bu xaalis génnee nag. xel yi day tëju. xaalis fu mu génn. coow dina génn. paaka ak arbitre coow yi ñu daan coow yëpp ci loolu looy mën a génne xaalis. saaga yaag xas yaag naanga lañ daan wax ne arbitre làmb léegi ay jaase ci daan génn ak yooyu yëpp nag du du daaw fa génn fii nag lay génn nag mooy ci xaalis bu génn xaalis bu weex tàll génn ay millions génn di nga dégg lu nekk waaye nag conseil foofu la baaxee ministre boo ay conseil laaj leen nii damay xool ndax ma jox association yi wala ñu régulariser ñi régulariser bu ñu ko amee ñooñu rek koy seen waaye ñeneen ñi déwén ñëwen ba làmb ji ubbee bu ñu régulariser ndax dinañu am dara pourtant covid bi ñëpp la laal mm-hmm. covid bi ñëpp la laal képp ku daan dox activité rek sa activité ralenti na sa ralenti taxaw la kon tey jii joxoon ko association ne ñi am association dégg nga ñaa laa dimbale lii association ba ku ca bokk ca nga bokk ca bokkul bokkoo ca parce que yaa génne sa bopp parce que adhéré wu loo jëndoo carte bokkoo ca waaye rek bu fekkee ne dañ jox naa ko ñi nga xam ñoo régulariser rek ñenn ñi bu ñu régulariser est-ce que dinañu am loolu tamit loolu loolu tamit métaar ba na delluwaat monsieur le ministre nga delluwaat xool loolu bira yow bi nga xam ne jigéen nga ministre bi di waxtaanoon delluwaatal xool loolu parce que lii boo ko seetaanee mën naa di coow ci sa sa falu mm-hmm. lii nga nii nii ñu séddoo nii séddoo bukki bi ñu nar a def nii bu ñu ko defee rek dina di coow sa groupe mm-hmm. dina di sa coow te fi mu ne yow fal gu bees nga def fal gu bees ca coow baaxul ci yow mm-hmm. fal gu bees coow baaxu ci waaw coow gu bees moom da ngay fexe ba rek tegu ci yoon séddale lañu waxal ma Matar ba waxtaan ne ko ah xam nga moom ni ñu war a séddoo daal station daal mu ngi noonu yéen a ko bokk que jiite mbir mi it na woote réunion ñoom bokkal ne ah lii la ñuy jox duñ koy doxale ku dee wax sa xalaat waaw loolu mooy yoon waaye bu fekkee dañ ne ah dañ ne kii daam cinq millions parce que moo tëgg combat bu mag kële moo tëgg combat bu ndaw combat bu ndaw ak bu mag ak yooyu amul ci association ki ñëw jënd carte membre bu fekkee dañ maa jaay mille francs nga jënd mille francs ma jënd mille francs Adama jënd mille francs ñun ñoo ci yem képp carte de ñëpp adhéré lañu ñoo ci bokk yem ci association les sages bu ñu mayoon trente milliards bu ñu ko doon séddoo ñëpp amul Moustapha Gueye amul Birahim amul Pape Konaté amul kenn ñi ñëpp ñoo ci amul Serigne Kane ñëpp ñëpp ci am waaw amul ñëpp ci am parce que association bee ko moom waaw loolu defe naa moo gën a yenu maanaa dégg nga ñu ah nañ jox kii lii kër kër kër boobu la tëggoon kële naa nga nag kër moom maag la tëgg te bëri ñëwagul yow yaa waxaale ba lamb sa poos yaa fay la la jaral kon koy ba nga koy def mën nga ko kon koy bu yekkee demee tolof tolof na may lañ leen na ci ñëpp bokk nañ ci ku gis boppam na ci ku ne gis boppam man loolu laa man bu man loolu laay dox xaalis buñ ko ñëwee teg na association euh, association bi nga xam ne bii sunu mbokkum séeréer moom mànga moo ko jiite. tey ba ñu Ablaye Wade may cinquante millions bu ñu defoon noonu bu fekkoon ne man yëgoon naa ko man mi trésorier bi jotoon naa xaalis bi teg nañ ko sama loxo te kenn du laal dara te mbooloo mi toogul. dañuy woote réunion toog yendu añ toog lii lañ ñu may dañ lañ koy doxalee ku ne xalaatam. Mm-hmm. ñu bind denc teg ne ah nii lay feebar de nii lañ la deflee. parce que tamit bul fàtte ne ñi nekk ci promoteur am nañu ci wér am nañu ci wéradi am nañu ci amee nattu am nañu ci xam toll nañu diggante alal ju mel noonu bon nañ mën nañ koo jël sax di ci dimbali ay nit denc ko denc bu ñoŋ nag laa wax denc bu ñoŋ ku am soxla ñu ñëw abal la ci yow it boo paree delloo sil yaa ngi dégg li ma la ku ci am tolof tolof boo xam ne dañ laa war a dimbali bu boobaa nag ma lay doon social lay doon ñu ne ah ñun ko suñu kees am na nangam nañ leen sax dimbali ci néew diw nangam mii nga xam ne dafa am tolof wala dafa toll ci diggante wala wéradi na wala dal toll na diggante bu métti daal ñu taxaw dimbali loolu mooy taxawal mbooloo waaye mbooloo moo xam ne ñu ànd ko am sa gopp sa doole sa morom doole wan ko ko loolu du mbooloo de. association yi sax euh, jëf. benn ndimbal boo xam ne képp koo xamante ne bokk na ci association promoteur dañ waaw mooy ku ci tëgg combat. Hmm. dina yëkkati benn somme bu ci un million. waaw jàppalee la ko. waaw nga jël ko ak nga ñàkk koo jël dinañ la ko jàppale soo paree delloowaat ko ci kees loolu kay mooy cere ju cere ju neex cere ju neex cere diw dàqe. Hmm. ah dañ doon dajale ay un million di dimbalee koo dem la léegi nag lii kees la war a dugg lii. banque la du kees la dugg ñu formé benn association boo xam ne benn ubbi benn compte boo xam ne bi ñett signature yi génne xaalis. lii kay ku leen dimbali day jëlaat ay 1 million di joxe tey ñu jox la 27 millions kay loolu kay am ngeen fond de boo xam ne du ngeen ko wax fenn. fond de 15 boo xam ne kay dañoo la war a làqu dóor pooj hmm. te ñaanal Matar Ba bii mu yàgg fi téwér parce que nit ku baax la nit ku dimbali nit la hmm. parce que lii moom moo su fi am comme ñëw noonu mu ne maa leen dimbalee lii hmm. loolu naan nañu ubbi benn compte dugal ko fa compte boobu nag pour dimbali feebar a ngi ci deelee ngi ci dégg li ma la am natt bu garaaw ngi ci yàlla na ko yàlla teggi lépp a ngi ci biir bëgg tëgg tëgg làmb dem ba ci biir ay bor toppale tam a ngi ci biir dégg képp ku bokk ci association bi daal xalaat bi ci mu yaa ngi ci biir waaye koo xam ne ba ñu koy tëggeen bokkoo nag da ngaa beroon sa daara ba bokkoo dina xaalis bi dégg rek nga ci war a am dégg rek jërëjëf Pierre ñu ñëwaat ci beneen bi euh, muy mbëri hmm. kan moo leen war a kaasal mbëri kan moo nekk seen bopp mbëri kan moo leen war a waxal parce que père depuis bi feebar bi dugg see ba léegi bientôt léegi mu yegg ci un an. Hmm. xale yu ndaw yi nga xamante ni deux cent mille lañ doon yu ndaw yi nga xam ne cinq cent mille lañ doon. ba ci lamb ba tey combat amul dara amul ñuy gisuñu benn ndimbal boo xam ne jugee na ci état jëm ci xale yi xale yi tamit jooyatuñu loolu mais nee na li ñuy jooy mooy dañoo bëgg état bi ubbi làmb yi ñoom ñu dem bëri ji. Hmm. teraanga bu ñu fa am ñu mun ko yóbbu seen i hmm. parce que làmb rek la yaakaar. waaw yàgg naa xeeñ. Mm-hmm. dañ ko fajul mais yàgg naa xeeñ mm-hmm. ca jamonoy Tyson jamonoy Moustapha Gueye ak Tyson bi ñëw mm-hmm. ak da laa leen wax yàgg daan wax mu bëri du métier wuti leen métier ba ma ko dala ku ne di ma wax naa leen la ma leen waxoon tey xeeñ na ba ñëw booba mu ngi xeeñ di ñëw di xeeñ yii ba man xalaatu moon sax wala kenn waaye ndax damaa xam ne ndaw su tolloo ci digg dooleem ndaw nekk xale day far a jàngi wuti xam-xam xam-xam ak wërsëg nag du benn di am xam-xam doo wërsëg di nga am wërsëg doo am xam-xam xam nga loolu dëgg la léegi nag la ci am solo ku ci jàngul sport daf laa war a boole ak métier sport daf laa war a boole ak jàng waaye jàngoo te toog bala maa dee kenn toog ci télé rek ne man bàyyi naa lépp mé bëri kay sama bëri ndox da cee gaaw mën nga dem entraînement rek am genou wala am cheville dégg nga gaañu wala grain wala dara dara jot la wala feebar daf la ñaata champion ñoo fi départ ñoo xam ne ñi tey jii ñëpp amoon yaakaar ci ñoom fu ñu mujj dama lay limal rek kenn rek kaaw si ku ne woon kaaw xam nga ko baax waaw ku la ne woon ko du ub làmb doo ko gëm ah ay birisi ku la doo ko ub làmb ay ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne tey jii tey jii ah Pape Cambérène xool ko xoolal Pape Cambérène boobu xool depart bi mu amoon moom it moo tax dama ne sport ndog da cee gaaw mm. moo tax boo cooloo jàng na nga jàng mm. boo too sa ni xel neexu jàng jàngil métier mm. te njub lal ko doo torox mukk ci na ngay am taraanga léegi nag fii périodement bi ñëw na feebar bi ñëw na ñoom ñëpp kenn ku ne toll nga di na ñi ci am métier ñu nga seet seen liggéey waaye ñi ci amul métier fii ne tey sonn lañ def sonn la ñu def ku ci amul sa ngor ak sa diine nag nga ngor ak sa ngor ànd ak sa ngor xam nga lay mujj sàcc ñu ñof la ci kaso bi ñaan jàpp nañu diw tëj nañu diw diw kër këf naa la li jàmbur ñaata mbër fi këf la li jàmbur ñu tëj leen ñaata jàmbur fi ay dégâts ñu dóor tëj leen ah xam nga loolu lépp li ko waral mooy waaw mais moo tax fii ne nii pour tamit gouvernement bi dimbali leen du yomb pour ñu jooyal leen tamit du yomb jooyal bi yëpp mooy ñëw bi làmb ji rek ku ne am sa wërsëg waaye yëkkati somme boo xam ne da ngeen koy jox ñu séddoo ko ñaa nga moom noonu ñaata mbër a fi nekk. bari na mais football bi football bi tamit bu ñaata ñaataay footballeur fi ne. ñaata équipe fi ne équipe bu ne ñaataa fa ne. boo ko defee di ko def footballeur yi. Mm-hmm. di ko defal mm-hmm. lu ah, ah, bëggee kenn ku ne nga woon ne ne jox contre Sénégal boo xanaa bit si bit si Amérique sax attanu ko. a waaw d'accord waaw état li ma la wax sànq daanu moom dajul suuf. waaw waaye état mënul dimbali ñëpp. mais lu tax bi ñuy ubbiwaat. Hmm. ñu ñu bàyyee activité yëpp muy dox. bois de nuit yi dañ ko ubbi. terrain de football yi dañ ko ubbi lan moo tax arène bi mënuñu ko ubbi ci moment bi ñu doon ubbee boîte de nuit parce que boîte de nuit da plus de deux cent cinquante personnes daje fa. di fekk ku nekk di ñaq sa ñaq di laal sa morom te làmb ji mën nañoo ubbi arène national def jël ay mesures de barrière yoo xamante ni ku ci nekk mun ngaa toog ci benn siège doo laal sa morom takk masque laal zel dugg toog te du la yàqal dara loolu est-ce du loo xamante ni tey dañoo am sàggante boo xamante ni dañ ko bàyyi ci làmb vraiment te waa acteur làmb ba tey gisuñu ñu génn benn yoon kaas ci wala ñu wax ci. gis nga euh, jili hmm. làmb yàgg na maa wax ne la. amul ndey amul bàjjan amul nijaay. xam nga lan ma bopp sa bopp rek a fi dox dox. ba làmb dee làmb man li ma ci fekke de hmm. avant ñoom ba ba ci ñun ñii ba ci ñun ñi ñëpp làmb bopp sabu ku jekku ba téye ci buum gi xaaral ma soog gestu ñu sa ginnaaw ba làmb di la ñi fi daan kaasal làmb di toog ci rajo bi télévision di kaas kan la ndam si yàlla si tubaabu joor yàlla na yàlla yërëm ko yàlla ko yàlla xare na ak Birahim Ndiaye hmm. ñun ñii rek man rek ñoo fi toogoon di kaasal mbër hmm. amul keneen koo xam ne ñooy toog di kaas ca jamono Abdoulaye Diop Mokhtar ba na nga ni laa wax de ñoo fi toog di kaas ci làmb ba du loolu sax lu bëri bëri na freiné sunu carrière ba mujj gi gars yi takkatoo sax mbëri naan man ne du ma bëri teeg diw nangam nangam di commencé di ñu xeex pour bëri ñu waaye dara boo amee métier bu wóor na sa liggéey daanu sa doole dara yàlla da dimbali rek loolu rek la waaye gis nga dama leen loolu yàgg na fi am ku fi am tëye buum gi doo far parce que ñi fi nekk bëreet ñu doon tëdd nii wax ma kenn ku ci ma sa benn vidéo toog ne dañ leen dimbali ubbi làmb ji nangam naa mos xale bu ndaw la demagul fenn yaa ngi dégg li ma waaye ñi nga xam ne ñoo tax ñu tudd làmb nga xam ne ñoo lekk ci cent millions yi quatre-vingts millions dix wax ma ci kenn rek koo xam ne kii toog na kaasa làmb muy benn ancien lutteurs yi nga xam ne dañu fee bëri woon toj làmb ba ñëw toog wax ma fenn fu ñu mas a toogee kaasa làmb ancien yi dama ne wax ma ancien lutteurs yi nga xam ne tey ñu ngi ci CNG bi bokk ci CNG bi ñu jox leen ay ndomb tànk kan ma ci mas a fekk benn vidéo rek nga wan rek toog rek ne nañ ubbi nañ def làmb ji nii nañ ubbi làmb ji nañ def loolu sañ sori na waaye kaasal mbër loo xam ne mu toog wax nga xam ne li mu wax intere mbër la wax ma ci kenn ku ko ci amit yéen internet yi na ngeen ma ko wax ne ma diw toog na kaasal mbër taas ci toog dóor ci télé bi toog ci télé ne nangam ak nangam lii ah wax ma kenn kenn amul du ménager nag du mbër mu mag du kenn mbër daal bopp sa bopp la ku jàpp ci buum gi sa baax na yàgg say bokk ngeen dem gis nga boo demee ba daaru nag ba nekk am bees commencé yor sa làmmiñ nag daal di wut groupe bu la jàppale rek nga commencé xuloo di kaas am na fi. am na ci mbër yoo xam ne du ma toog tudd seen tur fii. ah waaye bi ñu tolloo diggante fii gaa yi leen kaasal. kaasal xeex ba ñu nekkan en règle. ba taxawaat waaye gis nga loolu jaaduwul gis nga lii pour pour defaraat ko mu taxaw nii foog mbër yu mag yi nga xam ne ànd ak ci ñooy ànd nekk benn xeex seen intérêt. xam nga ne Gris Bordeaux fu mu taxaw Modou loo taxaw fa Balla Gaye taxaw fa Lac de taxaw fa Eumeu Sène taxaw fa dégg nga Boy Niang taxaw fa Tapha Tine taxaw fa Sa Thiès taxaw fa kii Garga Mbossé taxaw ak kële nu mu seeti Ama Baldé bu ko bàyyi taxaw yéen ñëpp ñu ànd ñëkk ak seeni rakk ñi nga xam ne ñu ngi leen daf dabal ñu ànd toog waxtaan ah dem seeti président toog waxtaan ak moom bu ñu fëggee bunt bi jaar ci Matar ba dañ leen ubbil ci toog président wax lam lam ni mu bëggee mu doxee waaye lépp kenn du ko def fii ne ku fa doon demee sa audience bopp doo ngay tànne ku doon dem di seeti président sa audience bopp doo ngay wut doo wut sa kenn ku wax da wax sa demee sa projet rek ngay teg say projet yi nga xam ne boo bàyyi làmb lan nga war a doon loolu ngay teg waaye projet boo yi ne ci sa ginnaaw làmb ji bu jeexee lan la ñu war a doon doo ko dégg mukk ci àdduna moo tax may làmb bopp sa bopp rek booy moo tax kenn ku ne booy ba nga góorgóorlu de fexe am sa ngërëmal waajur defar sa carrière sàmm bu làmb jeexee nga am loo jàpp ku ko ci deful bu làmb jeexee di nga mere ku la deful dara te fekk yaa tooñ sa bopp ba nga ci téye ci buum gi liggéey la nga a liggéey loolu ñëpp la jërëjëf Père Birahim muy xam-xam boo xamante ne macha allah képp kuy njabootu làmb rek war a jëriñoo. père ma lay jaajëfalaat bu baax a baax. waaw jërëjëf di ñaan ci yàlla kàddu yàlla bu mu suñu mujj kàddu rek. waaw parce que tamit làmb liñ ci war a wax bari na. Mm-hmm. te daanaka euh, dañuy door a commencé rek. dañuy door a commencé waaye làmb liñ ci war a waxtaane mm-hmm. ba dina jeex yàlla na yeex waaye dañ ciy waxtaanee ba jeexal ba suñuy sët. Mm-hmm. seen sët ba lekk si biir yéen seen i doom ak seen i sëtaat. ñu naan maam Kagure daan na wax lii wala maam. maam Thiaw maam Abdou Khadir moo daan wax nangam ak nangam ak nangam bi ñu koy nettalee ñoom Falang ñoom Jéeri saajo ñoom Maroon Xule ñoom nang te mosuñu gis ñu sax ku leen gis. xam nga loolu àddina noonu la moo tax booy wax waxal lu jëriñ nit ñi rek. ah ñu ñu ñaan yàlla sunu kàddu li ñuy wax na fekk muy jëriñ nit ñi. lépp bu ñu naree wax loo xam ne jubul ci nit ñi sax yàlla na yàlla jubbanti sunu kàddu wala kalaama ba ñu mën a wax lu jëriñ nit ñi. waaw bu ñu naree wax loo xam ne jëriñul doomu aadama yi yàlla na yàlla jubbanti sunu ma ba ñu mën a wax loo xam ne koo dégg jëriñu ci parce que loolu rek mooy suñu toogaay mooy suñu njëriñ mooy njëriñu wasaare wasaare moom yàlla na fi yàgg te taxaw rek te it abonné maa ngi nuyu nag sama benn booy boo xam ne bii mm-hmm. euh, kii war na ko xam kàggu war na ko xam ñu di ko wax euh, Assane Assane Côté waaw Assane Côté mm-hmm. mu nga dëkk Diourbel waaw ne ku yëngu ci affaire ko ne bi ma ko waxee wasaare dafa ne ma sama gars yëpp lay contacté ñu ñu ñu abonné ci club bi ñoom ñëpp Assane mm-hmm. danaa ko woo bala maa jóge fii sax Assane Côté booy bu baax la xam naa moo kii ne mu waa kër yëli la maa ngi koy nuyu di ko nuyu xaritam yooyu supporter Modou Lo ak supporter Balla Gaye yooyu maa ngi leen nuyu keroog waxtaan mu neex lañ fa waxtaan maa ngi leen nuyu di leen ziar yëpp di ñaan moom it supporter nee naa ko ñaar rek bëgg Modou ak ak ak ak kii euh, Macky Sall Modou Lo ak Ama Sène Modou ak euh, kii ak Sall ñooñu rek la bëgg nee ko yow ñooñu moom <laughs> booy bu xoromu la sax ndeysaan maa ngi koy nuyu di nuyu parents